ba mu tagga tébee yàgg na ñu bëri dañ doon xaar élection yi jeex pour ñu recommencer waat benn affaire je souvent que ñi ngi jéem a gérer le problème des candidats yi ñu ne dañ leen recalé mais fàtte candidats yi nga xamante ni dañoo war a bokk investissement yi ñu def li ñu li ñu pa waajal yëpp nga bëgg ñëw ci yoo xamante ni parce que pour man euh, président moo fi taxaw 2016 ne de bëggoon naa wàññi mandat mais dañ ko koo tere mais tey lii mu def de mooy dafa yokk mandat bu ñu bàyyee président mën a yokk mandat am c'est extrêmement avec un président mën nañ la fal démocratiquement léegi nga toog mais sans la démocratie parce que ñi ko ñi ñi nga xamante ne xëy na utiliser na euh, seeni problème comme euh, raison pour justifier lii amuñu benn contrôle ci li après lii xew amuñ te lii dañoo ubbi bunt boo xamante ne xamuñu lan moo nekk ci bit parce que lu musul am Sénégal la parce que mu Sénégal dàq nañ fi élection yu ne quand booy xoolee histoire du Sénégal entre 62 63 lu ci am ci ay morts taxul dàquñu élection yi c'est-à-dire ñëw ba ci et puis à deux jours des élections à à vingt quatre heures de l'ouverture de la campagne nga teg loo xamante amul benn raison boo xamante ni président de la république moo la xam ne raison bi muy wax dëgg amul euh, moom mu ngi def une lecture de l'article cinquante deux sans pour autant nommer l'article cinquante deux parce que nee na li am diggante assemblée nationale ak conseil constitutionnel. parce que xam na ni euh, euh, mais. mais il ne l'a pas directement invoqué. mais xam na ni y rien président li muy wax nii yëpp raison xam nga mënoo fal euh, juge du conseil constitutionnel moo leen fal moo leen fal ñoom ñëpp assemblée nationale xëy na li waa ji wax rek ba PDS commencé ànd ak APR la ñu bëri commencé tiit parce que waa APR euh, dès le début commencé woon woon ne wan wane nit ñi ñu ci bëri ànduñu ak Amadou Ba bay taxaw naan jàmm a gën élection teg raison yu demee noonu maintenant bu ñu demee ba fii pour man euh, président mën na def lu nekk ba mu des ñu commencé di di jël ay décisions wala di fooye organisation élection parce que lii mu ubbi nii mooy ce qui fait plus peur mooy kenn xamul kañ la koy tëj te da koy bu ñu ko bàyyee da koy tëj saa yu ko neexee saa di dire que ubbi na léegi ñu koy seetaan euh, ñu war a xool li ñu war a chambouler lépp ci ay loi ay règlement euh, Sénégal instabilité bu ñu ko war a inst parce que li muy bañ moom moom lay am ci kanam xam nga nee na day bañ coow coow loolu lay am ci kanam parce que ku mu neex ak ku mu naqari lu nit mën a wax war nga xam ni parti yi nga xamante ni ñoo mënoon xëccoo élection yi mën koo gañe ñu ngi woon ci euh, vingt yi loo ci mën a dégg nag à partir de ce moment euh, bu ñu jëlee euh, loi day day metti dura lex sed lex day metti mais nit ñi dañ koy subir di ko di ko nangu mais bu ñu nangoo léegi may président parce que lii day nekk jurisprudence boo xamante ni président bu toog bëggatoo jóg wala xam nga ni lii mën na mën naa perte sa loxo nga créer ay ay raison parce que raison yi fi am yëpp c'est des raisons yoo xamante ni mën nañ ko sax créer parce que ce sont des raisons fallacieuses fallacieuses yoo xam taxawul taxaw boo xamante ni c'est-à-dire que bu ñu bàyyee nit mën ko lu toll ni réew premièrement la deuxième chose mooy xëy na humiliation bi ñu bëgg a def Amadou Ba je je pense que bu dul xëy na du homme politique comme ñeneen ñi amul culture politique mais lii mënu koo nangu bu ko nanguwul yow le président dina perdre le soutien de tout ton peuple parce que amul kenn ku d'accord ci lii parce que am na loo xamante ni mën nga am lu la mettre ci conseil constitutionnel man décision conseil constitutionnel li ma ci d'accord bëriwul mais li ma gëm mooy bu ñu faxee bañ ne conseil constitutionnel wax na jeex na. dañoo war a préserver l'image mais loolu euh, et le prestige de de l'institution. mais may mën a xoolal fu ñu nekk ci espace bu ñu nekk zone bu ñu nekk instabilité bu ñu nekk. parole bi suñu président amoon sur le plan international président Macky Sall kan lay waxale ci sur le plan international fan la mën a génne di wax naan Sénégal kan moo ñu mën a taxaw naan Sénégal léegi exemple ci démocratie. li fi am yëpp pendant deux ans ñu jàppoon ni parce que dal gi nit ñu daloon mooy jàppoon nañ ni élection lañu dem ñu régler suñu élection régler tous tous nos problèmes maintenant si les problèmes von continuer comme ça moom ubbi na bunt boo xamante ni xëy na jàpp na ni ça sa régle son problème mais bunt bi moo amul euh, cest à fu dugg foo xamante ni amul amul amul amul porte de sortie dessiné luñ ko porte de sortie man je suis sûr certain boo rombee ci yenn garab yi gis benn weñ bu jàpp dugg ci lënd di di wëndeelu day gën a day gën a day gën a jàmme mais malheureusement pour man le Sénégal quand même dañoo waroon joxe leçon démocratie mais fii ñu yóbbu nii ah. te tegoo ci ci nit ñi nit ñi tegoo seen loxo lu solide loolu moo ci gën a metti lu toll nii